naka noonu ca jannatul maxwa ndawam yi lee teewal ko ca gox bu ñu mel askan wa am ci mbégte lool muy mag muy ndaw ñoom ñëpp jóg di sargal Alla Sylla ci jëf ju baax ji nga xamee ne yàgg na ko def ci askanu Touba tey xam ne ne seen bëgg-bëgg bi dañ cee fas yéene ànd ak ñoom ca na mu ko bëggee ndax lépp lu ñu mas a bëgg bàyyi Alla Sylla taxaw na ci comme na mu waree moo tax ñun sunu wooree lum ñu wooree dañ koy wisu tubaarkalla ñoon ci sala ñu ànd waaw luñ ci góobe rek gar. luñ ci góobe ci salage bay àll rek gar. Euh, le 24 février bi ñu ñëw day bis bu am solo ci waa Touba waaye day bis bu am solo ci ñi nga xam ne dañuy jàppale Alla Sylla parce que président Macky Sall yàlla dafa dogal musta gañe Touba 2012 ba léegi élection yu fi ñëw dañ koy gañe te teewul muy gañe Sénégal. mu mel ne nag ngeen xam ko wala ngeen ñàkk ko xam gañe Touba googu président Macky Sall ci yaakaar seen leader muy Baye Alla Sylla te loolu li may wax ni lu wér wér la Baye Alla ci ñi président gën yaakaar pour gañe Touba ci la bokk coono yi yëpp loolu moo ko waral kon nag yaakaar naa responsable yi ëpp doole pii ci janatu Alla Sylla lañu àndal kon nag le 24 février ci ngoon seeni bureau soriwul bu résultat yi génnee da war a feeñ da cee war a feeñ bu ci feeñul rek am na ñu wax loo xam ne defuñu ko. Baye si la jóge Daaru Xudóos dugg si ci soxna Madiana ñoom kilifa ya amal fa mobilisation bu am solo ñuy xamle ne Madiana moom leer na ba pare. soxna maam say Mbàkke Serigne Bassirou Typ Madické ñoom ñëpp fekkee woon nañ jataay bu ñu mel Serigne Bassirou Typ di xam ne ni responsable yu Madiana yi ni ñu def noonu la joxante loxo rek mooy tax ñu am li ñu bëgg. mbir mu ñu mel ku ne war na cee roy ndax loolu rek mooy yombal président ndamam. ndax kat man jàpp naa ne sax li Moustapha Sy la doon wax léegi muy ñàkk gi fi daan ñàkk ndam li ñu ko gënoon di xañ mooy ñun ci suñu biir ñoo ñëkkoon a xàjjali ko ay nit nag buñ dee woote te ñoom ñi ñoom ñiy woote ànduñu dana jafe ñu am ñuy am ndam kon nag lu mel nii rafet na ci lool dana dundal parti bi te jort naa ne itam ndam li ñuy wut lu mel nii mën nañu ko may ndax bu ñu àndee boole suñu doole boole sunu xalaat bokk ci wenn yoon ñañuy seen danañ ci sawar ndax danañ xam ne ñun ñàkkuñu fayda. dikke dellu si ci seen jafe-jafe son yi di xam le ne lañu leen nattaloon muy 5 millions moom jeex na bu yàgg. xam le ni bu ngeen gisee terrain bi vide la ko waral mooy seen ay moyen moom jeex na bu yàgg waaye Baye Alla Sylla muy des ci terrain bi ba léegi ay moyen boppam rek lay jëfandikoo. bi loolu amee son bi li ñu joxoon bariwul. waye nak dañoo and ak suñu jambar ju bax muy bay Alla sila diñu jappalé ci fann yépp nak nit nak nek ci politique bum téku la défal ay bax bax nga wax ko bay Alla lim ñu défal ci ngor nañ ko wax te yàlla tax dafa goré nit ku bax la nit ku yiw la ab ak Serigne Touba la ma di len xamal ne liñ ñu bari wul joxone nañ ñu 5 millions francs CFA 5 millions yoy biñ ñu ko joxé saam yi dañ leen a jox deux millions yi Madiyana un ba six Madiyana gu ne dañoo décider jox ko cinq cent mille loolu mooy li nga xamante ne nii moo ñu fi dajale tey ngir ñu bëgg koo ànd àndub gor leneen la ca topp bu dee gaasuwaal la bu dee ndox la bu dee suñuy añ la bu dee reer la ak ku mën a doon ba ci ñi nga xamante ne nii dañ leen di yeewi suñ wàccee bàyyi àll si la mi moo koy def ci poosam nañ ko wax nag waaye àll si lay xamle ni nañu dooleel président Macky ndax kat ku def sa wareef sañ a laaj sa yelleef moom milieu terrain bi xamle ni opération wër ndomb bi da koo fas yéene wëyal te du ci tàyyi benn yoon. dañoo nekk ci politique di dox lu nga xam ne yaakaar nañ ci dëkk bi bu ñu ci continuer ñu jàppale foog nañ ni dañuy am ndam 100 pour cent am nañ ci yaakaar bu baax. Mhm. di nuyu nag waa Madiana ay nit nak bo len fekk set faaw nga nuy len di nuyu ma dikke bu baax waye nak ma ngi nuyu rakam yim andal muy wa Gowe. jowe jowe ñu ngi len di nuyu bu baax ci sen tour ak sen sant dañuy politique nak yalla dogal ñu boole ma ak sen dom mayor ko te yoreen wi rafet kon dina len nuyu yeen wa son 1 madiana 1 ñi ngi len di nuyu bu baax. di am nag yéen ci yaakaar dañoo tàmbalee ca maam say Madiana 6 yàlla dogal ñu teg ci 4 tey ñu ngi numéro 1 yaakaar naa man lañ ciy teg ñu bëgg a xamal président Macky sàll ñun day politique lu te noo ngi ci li mu nuy def loo waaye li ñuy wax nag rek ku dolli cere war ngaa dolli ñeex. danoo ànd ak nit ñi. Mm-hmm. lim nuy sant dañ koo fas yéenee def xam nañ li ci deuxième mandat. buñ ko ko jàppalee ba mu am ko ñun li ñu wax fee rek la ñuy wax fii dañ koo war a poñe dañ ko war a poñe ne ko nag ñun lii lañu bëgg tamit ku ñu ko defal loolu laa doon leeral li ci des ma dikka leeral na ko kon jëratut ma ciy jaar politique daal lañ ñuy def loote noo ngi koy def fu Touba nekk milieu de terrain la ñuy def ndax Daaru Xudóos lañ gont ña ngi fay def lañu war a def ñu xaar kenn ci zone yi boo gisee d'accorduñ ci woon lii rek moo tax am na nañu nit ñi ni ñu war a dox doxee wuñ ñu waaye ñun dañoo fas yéene dox ci suñu doole yi bopp ba président li mu bëgg mu am ko. politique nag ku bëgg a gañe da ngay am noo def mhm. ndax ñi bëgg réew mi daa bari te ñun fas nañu yéene kenn du ñu fekk fii ñu dëkk daan ñu loolu nag loolu lañ koy seereel na ko jot li ñam ñami jot li lii may wax nag sëñ naa ko wax mais damay jàpp ni su ma ko defee ba ngoon jot bu ne président dana ci jot bu ci président jotu tam premier ministre dana ci jot muy nag ku baax ku tabe ku yaatu yaakaar naa ñi topp président ñëpp di ko liggéeyal bu ñëpp defoon ne moom li muy wuti du jafe ndax li ngay def saa boo ci noppee soo ko ko jottalee dana ci jotti dana ko jottali kon nag moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ay àll wéyal ay jéegoom ca ndaamaatu. ndax kat moom fu mu dugg féppay daj. tàyyile takku nañ ba dëgër fa seenee jàppale bay àll ngir président am ndam ca gox boobule. Galas Mara nag. amul ben responsable politique bu muy liggéeyal bu Baye sila Sylla sant nañ ko gërëm nañ ko bu doon def pour ngisal dañuy xam ne day def ngir ngisal parce que ñun ñoo bokk marché bi kii def te yàlla tax xam nañ ko bu baax bay Alla xam nañ la bu baax xam nañ li nga mën xam nañ li nga mënut kenn mënu la ci kaw dañuy ñaan président Macky Sall mu gestu la bu baax a baax jox la ay la joxoon ñaar téeméeri milliards war naa Serigne Touba nga def ko ci talibé Serigne Touba yi. ñu ñëpp di ziyaare ñëpp. ah di wax ne nag ñi ngi jéggulu ndax mbooloo mi fi daje woon bari na macha allah waaye xëy na guddee gi te jigéen ñi xam nga bu guddi jotee moom ku nekk sa kër rek ngay daal di bëgg a dem ñi ngi jéggulu ci ni mbooloo mi ngi fi fekkul man nag maa ngi wax ci turu waa Kër Baye Laat ci turu mbooloo mi mbootaay gi sama mbootaay ji ma yore fii ah ñun nag ñun sonn nañu ci naxe yi ndax nag wax dëgg yàlla politicien bu nekk ñëw na fi waaye dañuy nax rek dem comme li ma wax sànq rek laay dëggal nag ñun xam nga lu ñuy tax fi mu ne nii ku ñu dimbali Macky Sall nag sama mbootaay yëpp bi ma ñëwee pour ñu péréneel ko ñoom ñëpp moom lañ péréneel mais nag taxaw nañu ne duñ ko voteel ndax ñun gisaguñ suñu bopp ci nguuru Macky Sall kenn ku nekk téye nga sa carte ne duñu voté ñu ngi may déglu nag man la ñuy déglu en tant que maire mbootaay bu soobee yàlla suñuy carte ngi nii ñun ñëpp ak samay maire mbootaay ñu suñu carte d'identité ngi ñu voteel la wasalaam Baye Allé xamle ne nanu ànd ak président Macky mooy yombal seen ay bëgg-bëgg donte fii du zone am wala sax ànduñu woon ak moom waaye lépp lu ko war ci ñoom dana ko def ngir ñu xamle ne président Macky Sall mooy tànneef bi gën ci élection présidentielle yi taala wa barakatuhu yéen waa Kër Baye Laat ñu ngi leen di nuyu man fii wax dëgg yàlla damaa wàll si rek waaye du sama fiñ ma féetale madiyaana lañ ma féetale loolu yàlla rek moo mën a xam ñun nag doonuñu état mais suñu bopp lañ am képp ku nga xam ni dégg nañ sa tawat liñ ci man dañ koy def liñ ci mënul nag état moo ko man danañ ko ko mën a jàmbat soxna si nag dégg nañ yow li nga wax bu baax waaye nag du ma la wateel li ma bëgg dag ma koy defal yaakaar naa yombul nit ki da nga koy defal li mu bëgg ba pare ni ko li ma nga ma defal li ma la defal fay ma loolu la ñuy wax ndax ñun tey ñi ni waxal loolu lañ leen di wax ndax nit tamit bu dee ñëw tubaab mu falu yàlla def mu falu te yow faloo ko li sëñ Moussa Bassir waxoon nu yéen bu leen di contre buur buur bu fekkee yàlla moo ko fal te faloo ko da nga koy jàppale te ni ko nag man bëgg naa nga jàppale ma ci lii su leen watee li ngeen bëgg da ngeen ko am soo leen watu tamit yaakaar naa bu yàlla da nga leen watu tamit saal gañe li ngeen bëgg it dinañ ci def lu man loolu rek laa ci amoon lu may wax maa ngi leen sant di leen gërëm. naka noonu mu wéyal caravanam bi ca quartier Mbal askan wu takku dalal ko fa. naka noonu kilifay gox ba ñu gën ci ràññee Serigne Moustapha Mbacke nekk sëtub Serigne fal dalal àll Sylla waaye Alla Sylla sàkk ay ñaan ci Serigne Moustapha Mbacke ci amul ndam ci élection présidentielle yi Serigne Moustapha ñaanal ko boole ko ak soxnaam. ma dégg mag ñuy wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën ne loolu moo tax ma yëkkat sama tànk ni porte à porte mbagg ak mbagg fu nit ne danaa la fa fekk ngir lan sëñ Yàlla mii kum fekki aw ñaqam la la fekk see. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare sëñ bu baax sëñ Moussa di siyaare soxna Ndumbe di di kontaan bu baax nag ci ñëw gi ndax soxna soxna Ndumbe kat yaa ngi ko bàyyi woon muy ànd ak man. te xëy na mosoo maa gis ah, doy lu googu nga am ci man nag ba bàyyi ko mu doon yëngu léeg-léeg ma ñëw seetse ko di ko yëngaloo loolu dañ la ciy sant bu baax li tax nag ma sawar ci ñëw ci damaa xam ni borom kilifa la waaye yàlla dogal man mii tamit may borom kilifa ndax biig ci guddi sama sëriñ sama kër la reere soññi ma ñaanal ma wax na may wax yooyu nag su du waxi mbooloo waaye ñëw na fa reere fa ni ma dama laa yërëm ci li ngay def kon nag damay ñëw ñaanal la kon suñ ñëwaatee ci yow tam soxna Ndumbe nga yilif ko di kilifaam bàyyi ko mu ànd ak ñun di yëngu ñun dañ la ciy sant muy boroom kilifa nuy borom kilifa man loolu rek laa ci bëggoon a am lu may sànni nga ñaanal ñu foo taxu ñoo jóg puukar yi taxu noo jóg dañoo gis ni lii ñuy def njariñul Sénégal la njariñul it waa Touba la ndax ñun ay liggéeykat lañ suñ gisee lu nga xam ne lii mën naa yokk suñ liggéey ku koy def dañ cee jàpp ndax la ngay wut nga koo am bu la neexee nga dem Dakar lijjanti say soxla ñëw julli si waa baax loolu yaakaar naa baax na ci waa Touba kuy wax ni baaxut ci yow itam dangaa bëgg sakk jëf waaye ñun xam nañ ne lu baax la ndax dañ doon wax naan dafa jafe dafa seer dañuy fay yaakaar naa ñun gisuñu ci seer ndax boo yoree sa wata su baaxee boo daan dangay lakk ñeenti junni boo ci defee ñaari junni di dem di nga dikk kon nag ñun loolu sant yàlla lañ ciy def képp ku ci ànd ak ñun nag di ñu ñaanal dañ lay sant gën a dolli suñu cër ci yow nga ñaanal ñu ba li ñuy wut ñu am ko ci sedd ci yar daal ci lañ fas yenee wéy ak i teggin. ñoo leen di nuyu di nuyu mbooloo mi nga àndal di rafetlu sa taxawaay cant googu nga wax ak kilifa googu nga wax ak ñaan googu nga wax dafay jiitu woon da bu ma ci àndutoon mel na ne seen ab ànd du kii kon nag lu leen nekk daal ñoo ngi ci ñoo leen di ñoo leen di ñaan suñu fal taxaw leen bu baax a baax bu neen ko bëggee rek ngeen amee ci lu koy seen jot. kon daal yaa ngi noonu lu ngeen ci mën ngeen def dangeen leen taxaw bu a baax góor ñi ak jigéen ñi yàlla na suñu ba faaw rek ak suñu falu bu génnee askan takku dalal ko fi quartier mbal te koy xamle ne fii moom bu tëddee mën na nelaw ba yandoor ndax nag gëmuñu ku lul président Macky Sall ndax Baye Alla Sylla ji na leen du ñuy mel ay homme de conviction lañ nekk maanaam ay nit lañ yoo xam ne ñu xam bëgg lañ ay nit ñu xam liñ bëgg lañ ay nit lañ yoo xam ne ay responsable lañ yoo xam ne la ñu bëgg lépp xam nañ ko ñooñu rek la soxna Ndumbe àndal te ñoo ñu ñoo jara àndal ndax mbooloo moo xam ne dañuy doon ka dañuy doon qualité moo gën mbooloo moo xam ne quantité lay doon toll nu leen neex te amuñ njariñ seet ñoo xam ne tey jii buñ nee bismillah ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga dem dem ca urnie wooteel Macky Sall dès le premier tour Touba lim fi musta am wala boog lim fi gëj a am mu am ko fi à 100 pour cent loolu lañ fas yéene te loolu rafet nañ ci njort ndax xaw ma man mbooloo xaw ma man mbooloo mais mbooloo mii nga xam ne soxna Ndoumbe ànd ak ñun di ko fas yéene liggéeyal amu ci kenn koo xam ne li ngay wax jëf bokkut li ngay jëf amut loolu nag mooy nit kenn ku nekk ci ñoom la ngay wax mooy leen ci yow te loolu du lenn lu weesu boo xasee ne waaw waaw la boo xasee ne déet déet la kon nag ñoo ngi lay tàllal suñ loxo di la xamal ne la mbir mi ñoo ño ñoo bëgg-bëgg bi nga ci am fas nañ yéene àndandoo gi yow ba suñ borom soo wa taala defal la ndoom ba tànk gu kawe sa njort ci ni nga ko bëggee ndax bu yàlla dogalee loolu am rek li nga bëgg lépp da ko am. ñu gis seen bopp ndax Macky Sall kenn nëbbañu ko xam nañ ne mi ngi liggéey waaye am na ci ñoo xamante ni li muy liggéey daa yëg seegut ci ñoom loolooy problème bi mais bëgg nañ ko pour mu yëg ci ñoom nag ki yow mii lañ ko yaakaar nga jàpp ci te yàlla tax sama xol sedd na guy xam nañ ne jullit nga ab yaaram nga murit nga murit saadex nga te nit li ma gën a neex ci nit moo nekk ci yow muy nit ku am ab yar ak ay teggin xam naa sama làmmiñ xeebu na trop ci di ko tudd ndax yaa mag fuuf waaye man sa dignité man moom laa la nawe man man Dumbe Mbàkke man ndax nit moom ba amee tekk ak ak dal rek dafa may daal di neex li ñuy wax nag kuy politique faw nga wax say doléance président Macky Sall ñun dañ koy wax ni ko ñun niti qualité la àndal ñin koy wanit dañuy bëgg mu di leen xool di leen gis duñ ko wax waxi caaxaan bu ñu dee mi ngi ñuy dégg waxuñu ko waxi caaxaan dañuy dem ci nit ñu nga xam ne wóor na ni gëm nañ li ñuy def gëm nañ seen bopp ñuy ànd ak ñoom ci liñ lim ñuy def loo na xam ne nag ñi ngi koy liggéeyal na taxaw na geesuñu ba ñi niy liggéey loo ñu mën a am lu ñu leen jox seeni financement financement yi nag tey am na lu ci tàmbalee génn ñu ngi ci jër sant Pape Amadou Sarr Amadou Sarr ministère de conseil sant nañ ko bu baax mais nag bu yokkee tamit dool lim ñuy defal ñu dool ñu doolee sant gën a sant ndax ñii dañoo ànd ak ñoom te ñu gëm seen bopp lañ xam nañ li ci état xam nañ ni tamit wér na ma ni deuxième deuxième mandat bi fii ci Touba ñun danañ koy ensirer mais nag ñu nit li ñuy wax nit ñi nañuy bëgg tamit ñu jàppale na ci di sant nag premier ministre tamit bu baax ndax li ñuy def itam buñ ko ko envoyé mi ngi koy xool na président xam ne ñi mu àndal ñoo nit yi qualité lañ kon nag lim ñuy liggéeyloo dañuy ñaan yàlla rek def ko bu premier tour mu gagné ko 100 pour mooy li ma wax rek nit yi qualité daal laa ciy àndal waaye na xam ne nam ñi may def loo damay dem ci ñoom di leen dikk làmp yi nag tamit fas nañ yéene comme li ngeen ñu ko waxee dinaa fi yónni Fallou suba mu jox la ñeenti làmp yaay xool nag foo koy samp di sant nag sëñ Saaliwu mii borom daara ji di sant Cheikh Cissé ñeenti làmp daal dinañ leen ko jox li soxna di ma wax nag ñun fu ñu dem fu ne dañuy fexe ba dugal suñu loxo doog di soññee jigéen ñi mu àndal nag dinañ fexe bu subaa ñu jox ko 500000 mu tàmbali liggéey ah, moo ah, xam ah. ñi muy liggéeyal loolu rek lañ amoon luñ ci bëgg a wax di sant daal bu baax di leen gërëm